الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عبي... فقد فاز فوزا عظيما أما بعد yéen mbokk julit yi ñi ngi sant sunu boroom ngalawaay jaam bi saxal di sant sa boroom ci boo yégee lu neex ak boo yégee lu naqari ñi ngi koy seedeel ne moom dong yeyoo ñu koy jaamu amul kenn ku ñu koy war a bokkaaleel amul kenn ku mën a jëriñ jaami àdduna wala mu mën a jëriñ jaami allaaxira amul kenn ku mën a lor ay jaamam àdduna wala mu mën leen a lor allaaxira lu dul sunu borom boobu jalla wa ala ñi ngi koy ñaan mu julli ca yeneen tamba soppeem bu màgg boobu di suñu soppe mi nga xam ne moo taxawoon ci jàngal ñu ak jaamu yàlla yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ku koy nar a roy ba ila yumi din ay yéen mbokk julit yonent boobu moo ñëwoon ngir jàngal ñu jaamu yàlla lan mooy jaamu yàlla mooy dund doomu aadama bi ngalawaay julit xamal ni sa dund yépp jaamu yàlla la kon léegi laaj bi ñuy laaj waaw naka laa mën a jaamoo yàlla ci lekk gi may lekk mbokk lekk googu nga xam ni la ëpp ci doomu aadama yi daan toog def ko ñetti yoon ci bés bu nekk mi ngi noonu naka laa mën a def ba mu nekk ak jaamu yàlla bokk na sunu xutba bi wéyoon ak yéen mooy ñu fàttali woon naka lañ mën a def ba nelaw yi ñuy nelaw suñu kawlal nekk jaamu yàlla amma buñ doon topp la nga xamee ni nii sunna wax na ko ci wàllu lekk dana ëpp ñaar fukki bind yuñ ca mën a fàttali allahuma lu dul jàpp ci ba ca gën a am solo ba gën a am solo ci bind yooyu mooy ngalawaay booy lekk nga xam ne mook booy liggéey nga xam ne mook booy tukki walla bépp mbir boo xam ne bu yàlla daganal la yow jullit nga di ko def boo ca yéenee sa ngërëmal boroom moytu ca ay tereem loolu day daal di doon jaamu yàlla ñeel la looloo tax sunu boroom ŋaññi yéeféer yi nee na yéeféer yi dañuy bànneexu ci àdduna suñuy lekk ni bàyyi muy lekkee lañuy lekke ay duñ ca xool lenn lu jóge ci yàlla walla lenn luy dol dellu ci yàlla amaa yow jullit yaay kan yow yaay ki nga xam ne sa boroom yàlla day moo la wërsëgal kàttanu nga mën a lekk waaye moo la wërsëgal li ngay lekk la jëkk am solo te lekk googu ngay lekk ngal la waay fexeel jële ko fu dagan fexeel jële ko fu teey sunu borom mu ne ee yéen ñi gëm lekk leen ci yu teey yi ma leen wërsëgal te ngeen sant samay xéewal ci yéen yàllaa ñu jox ndigal ci loolu danaa ci waxaale am na aada boo xam ne yéeféer yi ñoo ko indi suñu réew suñ maam yi musuñu koo xam mooy li ñuy tudde grève de la faim toog nañ ay weer fayuñu ma njàng mi sooxe na dàq nañ ma fa muy liggéeyee nga ne kon damay toog duma lekk duma naan ba baa may dee boo ca dee bu la yàlla jéggalul sa war a nga jëm lekk googu jaamu yàlla la ni julli nekk jaamu yàlla amoo droit bàyyi ko abadan waaye sunu borom mu ne bu ngeen koy def na ngeen ca xool lu tey lu dagan su ngeen pare ngeen sant ma man day bokk na lu ma araamal ci yéen la nga xam ne muy medd ak deret ak yàpp mbaam xuux ak lépp lu ñu rey ci yàlla taxul almuhim mooy yow julit xamal ne li yàlla araamal lu néew a néew la li yàlla daganal nga mën koo lekk ay million ci mbir lu yàlla indi ci kaw suuf la ba doomu aadama uute ak bàyyima yu bëri da ngay gis bàyyima yu bëri mënuñoo lekk lu dul ñax kese tubaab bi di leen tudd ay herbivore am bàyyima yoo xam ne yàpp rek lañ mën a lekk gaynde yaag insecte yaag yu demee noonu ñu tudd leen ay carnivore amma yow doomu aadama sa borom yàlla may na la nga nekk koo xam ni dañ koy tuddee omnivore da ngay bokk ak bàyyima yi seen ñax bokk ak bàyyima yi seen fruit bokk ak bàyyima yi seenu yàpp loolee kon di xéewal gu màgg gu la yàlla defal kon lekk googu boo ciy jublu war nga caa góorgóorlu bàyyi xel sa borom mbokk teggi ni lekk bokk na ca heure boo jubloo di ko def nga yéene ci daal di am kattan goo mën a jaamoo sa borom subhanahu wa taala loolu tax yonent bi alayhi salaam daan ñu wax sax ni booy ànd bul ànd ak lu dul ko ragal yàlla saw ñam boo koy joxe bu ko jox lu dul ko ragal yàlla ndax ñam woowu mu lekk da koy jëfandikoo ci jaamu yàlla dañuy wax kenn ci sunu magi réew daama sa wax mbooloom bàyyi leen dugub ji ngeen di yàq ñu ne ko sëñ bi moo ne ñun day yàqu ñu dugub ji de mu ne déedéet yàqu dugub ji mooy jël dugub yàlla ji lekk ba suur ca du ngeen taxaw ci jaamu ko ca yàlla bi mu ñu indil dugub ak ceeb ak lu mën a doon jubluwaay ba mooy doomu aadama bi am kattan ba jaamu ko kon sa yéene bu mag na nekk loolu waaye gannaaw ba mbokk julit na nga doon ku raxas say loxo wala la ngay jëfandikoo ndax islaam kat mooy diine yi set loolu ñu bàyyi ci xel bu baax gannaaw ba nga wax bismillah bismillah dalay fàttali ñaari mbir mbir mu jëkk mi mooy ñam wii may lekk day xéewalug yàlla la sunu borom mu ne ay yow doomu aadama fàttaliku leen samay xéewal ci yéen su ngeen dee lekk ngeen seetlu lekk gi yow sénégalais bi téem boolu ceebu jën jën yaa ngi nii kan moo ko bind carotte yeeg nawe yeeg kan moo ko bind ceeb bi kan moo ko bind sunu borom mu ne kan moo wàcce ndox jële kaw asamaan kan moo jox ordre suuf mu génne meññeent kan mooy ki nga xam ne moo leen génneel am ñax ba ngeen man ci lekk bi seen jur di ci mën a lekk kon ngalla waaye fàttaliku leen xiiwalu yàlla ci loolu loolu rek jar na nga wax bismillah xam na yaa ngi lekk ñamu keneen ñam woowu kan moo ko moom muy sa borom boobu di allah nga ne bismillah waaye ñaareelu mbir bi la bismillah di fàttali mbokk ñam woowu boo ko lekkee fan la jëm kan mooy ki nga xam ne moo koy wàccee sa biir estomac bi kan moo koy manipuler daal di koy dugal ci benn laboratoire lee mën a doon am deret lee mën a doon ndox lee mën a doon ay cabinet lee mën a doon loo xam ne lu lay jàppale la fekk yaa ngi liggéey wala yaa ngi nelaw ana kan moo def loolu kan moo lënkalee kat kattanu lekk ak naan doon loo xame ne nii dafay jëriñ suñu biir yaram loolu mbokk mooy allah loolu moo tax ba booy lekk nga wax bismillah ngir ñaan yàlla barkeel ñam woowu ana ñaata doomi aadama la leen lor ba yóbbu leen laaxira ma nga jóge ca ñam ba ñuy lekk kon bismillah yaa ngi ciy jublu ñaan yàlla ay yàlla ñam bii may lekk yàlla nañ ci def barke mu doon lu may jëriñ bañ a doon lu may lor bokk na ci loolu mbokk jurit mooy su ngeen mënee ngeen di lekk ci mbooloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ñëw ci moom ne ko ñun day dañuy lekk lu bari waaye duñu suur mu ne mën naam da ngeen di teqalikoo bu ngeen di lekk ñu ne waaw mu ne nag dajaloo leen seen lekk kon de yàlla dana ko barkeel yonent bi alayhi salaam ne lekk benn ñam suur na ñaar lekk ñaar suur na ñett loolee imam ahmad solo na ko da ngay gis ne alhamdulillah ñun fii en Afrique yàlla may nañu ñu daje ci boolu lekk loolu ci la ñu daan am cofeel bu daan dugg suñ diggante ci la mag ñi daan waxtaane ci la xale yi daan déggee lu ñu mën a jëriñoo ci la ñu daan yore sax ndaw ñi ba am na sax ku ci bind benn téere tudde ko l'éducation autour du bol te mooy Afrique ci jamonoy lekk ci la ñu daan yore seenu njaboot loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax allahuma bi tubaab bi ñëwee ba coloniser nañu indi nañ teqalikoo googu soo demee ci kër patron yu bari léegi ku nekk ak sa plate bopp lu mel ni ndékki moom daanaka gañe nañ ko lu bari ci kër yi Dakar yi doo gis ñu daje di ndékki abadan ku nekk ak sa kopp ak sa daggu mburu loolu mbokk lu dagan la ku nekk ak sa plat lu dagan la waaye dañ ne la barkeel ci lekk mooy ngeen dajaloo lekk loolu mooy la gën a barkeel ci lekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere ñu bu leen toog mukk ci taabal joo xam ne am na kuy naan sàngara ko fa toog loolu lislaam da koy tere ngeen bàyyi ci xel bu baax booy lekk am na ay ñaan yoo xam ne rot na ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne kenn ci yéen day heure boo xamee ñu ni day lekk na wax ay yàlla yal nag ñu barkeelal ci li ñu wërsëgal ca nga leel ñu loo xam ne moo ko gën allahuma lu dul meew danga naan yàlla yal nañ ñu barkeelal lim ñu wërsëgal ca leel ñu leneen lu mel ne moom ndax meew mooy li gën ci kaw suuf lu ñuy doomu aadama di lekk mën a remplacer lekk naan comme xale bi doog a judd meew la ko yàllay jox loolu kenn discuté wu ko bokk na ci loolu mbokk julit mooy ngelawaay booy lekk na ngay lekk ak sa ndeyjoor booy naan na ngay naane ak sa ndeyjoor boo demoon nag ci milieu yi nga xam ne ay tubaaba fa nekk wala nit ñu ñuul ñu tubaabe ya su boobaa dañ naan la sa fourchette gauche sa càmmoñ nga koy téye téye sa paaka sa ndeyjoor loolu mbokk nañu xam ne seytaane mooy lekk noonu jullit du lekk ndeyjoor jullit du lekk càmmooñ jullit du naane càmmooñ xatta buy ndékk yow bàyyil xel loolu gannaaw loolu mbokk jullit bokk na ci bu doon dangaa bokk ak i doomu aadama nga fexe bay lekk li sës ci yow bañ a dem di jëli la nekk ca kanamu keneen lu dul mu mel ne ay lujum yu ñëpp bokk waaye booy tibb tibbal sa kanam loolu la ñu yonent bi alayhi salaam waxoon yonent bi it nee na barke ñam bi day wàcc ci digg bi kon na ku nekk di lekk ba baa ñuy daje ci digg ba islaam it mbokk bëggul kuy lekk di bew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne daana tere nit ki di lekk di suunu ca mooy geganoo sol wet di lekk wala nit ki di lekk di defeenu déedéet heure boo demee bay lekk ngalawaay waneel toroxlu googu ci lekk googu ca xam ne jamono ji nga koy lekk ay jaami yàlla yu dul jeex ñi ngi nekk ci àll bi ak seen xiif ñi ngi nekk ci prison yi ak seen xiif loolu wala ñu tëddala lu hôpital meew sax munta jàll seen put kon nga la waay toroxlul ci lekk googee nga xam ne moom ngay lekk nañu moytu di lekk ñam wu tàng yonent bi alayhi salaam nee na ñam bu tàng loolee barke du ci am bu la yàlla natt woon ba ngay lekk lu tàng it wala di ko naan moytul di ko ëf ca loolu gis nañu yonent bi moo ko tere donte ne ne médecins yi dañuy wax ne am na ay microbe yoo xam ne mën na nekk ci doomu aadama soo ko afee ba mu génn nekk en contact ak ndox wala leneen mën na jël beneen forme soo ko naanaatee mu lor la loolu dëgg la am du dëgg ñun lañ ci yitteel mooy yonent bi da koo tere bokk na ci loolu mbokk julit mooy booy lekk nga bañ a ëppal lekk ba sa biir na dadd yonent bi alayhi salaam nee na ndab yi nekk ci kaw suuf kenn feesalu ci benn ndab bu gën a bon biiru doomu aadama mbokk loolu ñu bàyyi ci xel lekkal ba suur yonent bi alayhi salaam nee na bu dee mënoo bañ a feesal biir bi xaaj ko ñetti xaaj benn bi nga jagleel ko lekk benn bi nga jagleel ko naan benn bi nga jagleel ko noyyi gi ngay noyyi amaa lekk ba suur naan ba fatt ba nga xamee ne booy noyyi da ngay am problème loolu jukko bàyyuma la nekkul la nga xam ne mooy jukko julit nañu moytu it yonent bi tere nañu ñuy lekkee la nga xam ne mooy kuddu xaalis wala ndabu xaalis ñuy lekkee kuddu xaalis wala ndabu xaalis wala di naan ci la nga xam ne mooy seeni kopp yonent bi alayhi salaam nee na loolu yéefiir yi ñoo ko moom àdduna ñun yàlla mi ngi ñu ko jagleel ca biir aljanna ñu bàyyi xel ci loolu mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daanañu wax ne kenn ci yéen bu yëkkatee dara ci ñamam mu wadd ngalawaay ni dindi la ca nekk ci lor ca lekk ko bum ko bàyyee ak sheytaan ca loolu itamit mbokk la ñu yonent bi alayhi salaam waxoon ni su ngeen lekkee ba pare na ngeen mar seeni baaraam ca ngeen fomp seen ndab di sunna boo xam ne xawma ñu ko moom waaye waa Sénégal moom mënuñu ko jigéenu Sénégal bu la joxee nga lekk boo ko lekkee ba mu jeex day rus waaye mbokk lay sunna mooy ndab bi ñu lekkoon ko ba mu jeex tàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na xamuleen fan la barke bi nekk ci seen ñam waaye cay waa Dakar da ngay gis bu ñu añee ba pare dajale seen ñi desit daanaka mbooloo mën nañ ci lekkaat lu bari ci ñoom dañ koy jël tuur ca poubelle ba ba nga xamee ni ku mënoon a recenser ñaata tonne de ceeb ñooy dem ci poubelle bi wallaay loolu dana doon loo xam ne lu bari la am na kenn ci Arabie Saoudite doon na dem ci restaurant yi di def recensement boobu mi ngi trouvé woon quatre-vingt-dix mille tonnes ci loo xam ne dañ koy tuur mbokk loolu dañuy gis ne mbir la moo xam ne nii ku nekk ci ñun war naa xool lam ca mën a jubbanti kéemtalaal kattanam mu daal di koy jubbanti ci loolu bokk na ci mbokk julit bu la yàlla wërsëgalee aw ñam ñam boobu nga bañ koo sikkal sa soxna indi na ñam bi ku la mën a jox ñam soo mënee lekkal soo mënul bàyyil waaye bu ko sikkal ndax looy sikkal rek am na kum neex ci moom loolu nga bàyyi ci xel bu baax bal soo mënee nga tagg ko comme ne yeneen ci baali salaam doon def da daan tagg aw ñam ak ñam boobay li mu suufe suufe bokk na ci mbokk la nga xamee ni nii moo ca mujj mooy doomu aadama bi di sant yàlla heure bu lekkee ba pare yeneen ci baali salaam mu ne day yàlla dana gërëm ab jaamam heure boo xamee ni nii lekk na ba pare wala mu naan ba pare mu daal di cee sant yàlla ca mbokk li ñu lay wax ci lekk gi yépp dafa valable ci naan gi nga la waay tàmmalal sa bopp bis nekk tey bul naan mukk ca waxoo bismillah bul teggi sa naan mukk ca waxoo alhamdulillah nga jàngal ko sa njaboot yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne képp koo xam ne dafa lekk ba pare naan ba pare daa dina maa ngi sant yàlla mi ma wërsëgal lii may ma ma man koo lekk ci lu dul sama kàttan ci lu dul samay pexe ay mbokk jullit xam leen ni sunu borom yàlla su ko neexoon ceeb du am dëwlin du am mag ñi xam nañ li may wax am na ay jamono nit ñu yor seen xaalis waaye gisuñu ceeb ay jamono day am nit ñu yor seen xaalis gisuñu dëwlin xatta yëri yi fees seen armoire laaj leen seen maam yi am na ay temps nit ñu yor seen xaalis gisuñu yëre bu ñu sol loolu kon kàttanu yàlla la mu may la xéewal gi kàttanu yàlla la mu may la nga mën koo lekk junj naa ko sànq ci xutba bi demel oreel boo mën a doon nga laaj leen da ngay gis ay millionnaire yoo xam ne ñu ngi fa tëdd benn guuxu ndox mënul jàll seen put kon bu la yàlla mayee nga mën a saqami kàttanam la su la yàlla mayee nga lekk mu jàll kàttanam la su la yàlla mayee sa estomac baax kàttanam la su la yàlla mayee nga mën koo génne kattanam la kon loolu da nga caa war a sant yàlla yeneen ci bi alayhi salaam ne lii day képp koo xam ne wax na ko yàlla baal ko bakkaar yéen jiitaloon lépp ay maa ngi sant yàlla mi ma leel ñam wi wërsëgal ma ko ci lu bokkul ak sama pexe wala sama kattan yàlla baal la say bakkaar mbokk lislaam fàttewul ba fàttewul li wala fii tudde jaraw lakk wala si boo ko joxee mu lekk mun na la jaraw lakk lan mooy jaraw lakk wala bu dee tubaab bi mu ne la merci lan mooy merci amma lislaam lam ñu jàngaloon mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ku ko masama yi mu lekk lan la wax allahuma atim man atamani wasqi man saqaani ey yàlla képp ku ma may nga lekk yàlla na nga ko may mu lekk ca ku yàlla leel dootoo xiif ey yàlla képp ku ma nandal yàlla na nga ko nandal ca ku yàlla nandal dootoo mar loolu ñu bàyyi ci xel bu baax dem na ci mbooloo it ñu may ko lekk bi mu paree mu ñaanal leen ne yal na yàlla may leen yoolu ku dogal ñu wóoroon yal na yàlla may leen yoolu ku nit ñu baax lekk aw ñamam yal na yàlla sant ay malaakaam ñu daal di leen di un un julli ci yéen ñaan yooyu soo ko mënee fa xayu waaye ngalawaay boo ko mënul jazakallahu xayran bépp jullit mën na ko heure boo xamee ñu ni nit yakkal na la togg nga aw ñamam mbokk jazakallahu xayran nga koy wax yal na yàlla subhanahu wa taala fay leen la nga xam ne muy aw yiw mbokk lekk ngi noonu bokk ci mboolam li ñuy def bu ñu yeewoo suñu lal ba baa ñu cay dellu ngalla way yéene ko def ko muy jaamu yàlla sa borom yàlla bindal la ko muy jaamu yàlla nga boole sa biir fees boole yàlla sippil la say bakkaar feesalal la say tuyaaba loolu ñan ñoo koy am mooy li ñuy tudde muhsinin ñi nga xam ne fu ñu toll ñi ngi bàyyi xel seen borom yal na yàlla wërsëgal ñu ñam wu dagan ca teey yal na yàlla féewal ñu lépp loo xam ne nii lu xaraam la yal na yàlla yombal ci ñun ak lekk ca barkeel ku ci ñun yal nañu yàlla boole ci ña nga xam ne ñoo ko cay sant yal na yàlla musal ñu musal suñu njaboot ci xiifu àdduna xiifu allaxira ak maru àdduna ak marum allaxira yal na yàlla rafetal suñu mucc wàcce jàmm ci jurit ñi fay géer yi nga xam ne julit yi ñu ngi koy dund ci kaw suuf ña tumurank ca àll yi ak ña feebar ci hôpitaux yi yal na yàlla woyefal leen delloo leen seen kër yi ci jàmm yal na yàlla defal ñu àjjana muy sunu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azaba annar ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين